lil Moustapha kulliyati kulla sana matxan salaatan wa xabaabi azana ñi ngi ñaan Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké yàlla na fi yàggaat lool ànd ak wér. waaye di ko ñaanal bu baax sëriñ Amdi Fall muy saala pende mi des si de Baye Fall. waaye di ko ñaanal bu baax nixmal xalifatu sëriñ Cheikh Bintu Fall xalafan mat na xalifa ci lislaam ku mel ni moom jafe na. mbokki jullit yi mbokki taalibe yi mbokk yi topp ci biir réew mi ak bitim réew yéen a ngi fii ci Mbàkke Bawal ci kër jàmbaar ju baax muy soxna am Yàlla Njaay li liggéeyaakoonu maam seeni bu Njaay soldaaru maam seeni bu Njaay ñayu xare di jàmbaar lool di jëwrinu daayira maam seeni bu Njaay bu Paris jiite daayira subulu salaam jiite Paris Pôle 10 jiite groupe Baye international jiite association Mika ak mboolem daayira yi nga xamante ñoo ànd ak Soxna Amy ci biir réew mi ak bitim réew di leen di ko jàppale ci liggéey bu tedd bii. bu ngeen gisee sunu jotaay bii nu feggool nag muy jotaay bu tedd di jaajëfalaat bu baax baay malik Sall Mouride Sadiq ak sëriñ bu baax mi ak sëriñ mbay ci mara bi euh, ku ne xam na ni euh, Serigne Cheikh Bintou Fall mi fi nekkal sëñ Moudou laay Fall Ndar képp ku fi nekkal Cheikh Ibra wëlis woo xamante ni Serigne Cheikh at mu ne dina ko teg. ci loxol ki fi nekkal maam Cheikh Ibrahima Fall mu tàmbali woon ko ca baayam bu baax ba euh, Serigne Cheikh Jëmbu Fall xam naa Baye Malick dina ñëw ci historique wëlis wi waaye Serigne Cheikh Bintu ren jii mu jël liggéey bépp rek teg ko ti jëriñam jii nekk Paris muy soxna am yàlla Ndiaye ñu ngi koy jàllaat bu baax doom jooju fi bàyyi ko muy Aline Diop ak Serigne Ndiaye di masaw Adja soxna jaañ ak mbooleem famille soxna am yàlla yëpp rek bu ngeen gisee sunu jotaay bu tedd bii nga xamante nii ñi ngi fii ci kër Soxna Amy Yàlla ci wëlis wii nga xamante ni moo jëm ci sunu jàmbaar ji sëriñ Cheikh Bintu Fall xalifa sëñ Mouhamadou Abdoulahi Fall Ndar Soxna am Yàlla nag sëriñ bi dafa am mission bum ko santoon ci biir réew mi ak bitim réew muy wëlis wii jëm ci ki fi nekkal Cheikh ra mu ni sas na ko Soxna Amy Yàlla ak mbooleem daayire yu mu àndal Soxna Amy Yàlla ànd koog daayire maam seeni bu Njaay Soxna Amy Yàlla ànd koog daayire subulu salaam Soxna Amy ànd koog groupe Baay Fa waaye soxna Amy Yalla ànd koog Paris Pôle 10 ak mbooleem daayira yi nga xamante ni soxna Amy Yalla ànd na ko ñoom ci wëlis wi nga xamante ni jotoon nañ ndigal ci ki fi nekkal euh, sëñ Mour Ablaye muy sëriñ Cheikh Bintu waaye soxna Amy Yalla day tàmbale ci bopp bi jàmbaar ji nga xamante ni moo nekk ci daayira Paris Pôle 10 muy soxna Fatou Kiné Thiam mu baax mi soxna Amy mi ngi koy gërëm mi ngi koy sant mi ngi koy ñaanal ak mboolem mbokkam yi nga xamante ni jàpp nañ ci liggéey bi waaye kenn du ki nga xamante moo taxaw soxna Amy la ci daara ji muy soxna Ndeye Mbuub borom këll gi ñi ngi koy siyaare bu baax di ko jaajëfal di ko jox wàccuwaayam moom soxna Ndeye Mbuub borom këll gi ñu ngi ñaan ci barkeb sëñ Fallou jàmbaaram mi soxna Amy Yàlla sant na son Amy Yàlla bég na soxna Ndeye Mbuub borom këll gi ñu ngi ñaan yàlla sunu borom yokk say xéewal ni ngay taxaw daayira subul salaam ak daayira maam mu Ndiaye am na solo waaye di jaajëfal bu baax a baax eh, jàmbaar yi sëriñ Jili moom sëñ Fallou waaye bala ñuy jàmbaar yi sëñ Jili moom sëñ Fallou soxna Fatou Kiné Thiam mi nga xamante ni jëf na jëf ju rafet ji moom Paris la ne di kenn ci soxna am yàlla soxna Ndeye Mboup nekk Sénégal waaye dañuy jëm ci ki nga xamante ni moo nekk États-Unis muy soxna Khady Gueye Jili buñ tuddee soxna Khady Gueye Jili xel yépp dem ci suñu jàmbaar ja sëriñ Jili moom sëñ Fallou ñu ngi ñaan sëñ Galas xalifaam yàlla na fi yàgg di ñaan bis bii ñu génn démb ku ne xam ne ni moo nekkoon bii sëñ Jili mu sëñ Fallou kon soxna Khady soxna Fatou Kiné euh, soxna Khady Gueye Djily soxna Amy Yalla Ndiaye mi ngi lay gërëm mi ngi lay sant Serigne Cheikh Bintou mi ngi lay gërëm mi ngi lay sant ci liggéey bi ni ngi ci taxawee ak ñëpp ñu ngi ko àndal soxna Khady Gueye Djily ci réewum États-Unis Amérique ñu ngi koy sant bu baax di gërëm waaye fàttewuñ jàmbaar ji ko kan la soxna Ulay Dukure mu baax mi wóoli si maam si Rayen li yi soxna Ulay Dukure taxawaay taxawaay na ci taxaw taxawaay bu am solo nekk pari di ku yàlla baaxal di kenn ci soxna Amy Yalla bokk ci daayira Euh, maam bu Ndiaye bokk ci association Mika bokk ci daayira Subul Salaam soxna Olay Dukure soxna am yàlla mi ngi lay sant mi ngi lay gërëm Serigne Cheikh Bindu mi ngi lay sant mi ngi lay gërëm Dukure waaye fàttewuñu demaat ba pari di gërëm soxna Mbenda Diagne ñi ngi lay sant bu baax di la gërëm wali si maam Serigne Fall addi ji nga ci dugal ñu ñaan bu déwénee lii nga ci jëf ak mboolem képp ku nekk daara ji bu déwénee yàlla nga am lu gën a kawe sa njort ci barkeb suñ Tuubaa doolay maam Serigne Fall barke jàmbaar gi sëñ Mourou Ablaye Fall Ndar kon soxna Mbende Diagne Paris soxna am yàlla mi ngi lay gërëm waaye fàttewuñu nag soxna Buri Ndiaye mu baax mi nekk fii ci Sénégal di jàppale soxna am yàlla ci liggéey bi bokk ci daayira bi bi soxna am yàlla lancé message bi soxna Buri Ndiaye taxawaay ci taxawaay bu am solo nekk fii ci Sénégal ñu ngi lay gërëm ñu ngi lay sant di la ñaanal gudd fan ak wér tawfeex sangaat daari ni waaye fàttewuñu ki nga xamante ni nag moo nekk Amérique mooy Adja Soxna jaañ ñi ngi koy masawu bu baax a baax di ko jaalaat doomu ju baax ji Aline Diop di ñaan ci barke ak Serigne Ndiaye di ñaan ci barke Mame Serigne Fall mi nga xamante ni xamul jaale jàlle la xam yàlla ne Mame Serigne Fall jàlle barke Serigne Mourou Abdoulaye Fall Ndar Adja Soxna ñu ngi lay gërëm ñu ngi lay sant ci nii nga jàppalee soxna si ci wulis wii nga xam ne moo jëm ki fi nekkal Cheikh Ibra mu jaar ci bunt bi Serigne Cheikh Bintu waaye fàttewu ñu dem ba Paris di gërëm soxna Ndey Fall euh, soxna Ndey Fall mu baax mi nekk Paris bi soxna amee la lancé message bi ci mboolem daay yi mu bokk ci jëwriñ yi ànd mboolem jëwriñ yi soxna Ndeye Fall mu baax mi ñu ngi lay gërëm ñu ngi lay sant sëriñ bi bég na sëriñ bi kontaan na ci walis wii jëm ki fi nekkal Cheikh Ibra mu jaar ci bunt bi mu jaar ci soxna am yàlla tab bi ci mboolem jëwriñ yi soxna Ndeye Fall ñu ngi lay gërëm ñu ngi lay sant di ñaan yàlla sunu borom yokk say xéewal ci barkeb Sëriñ Tuubaa dooley maam Cheikh waaye ñu ki nga xamante ni mooy jàmbaari maam ma Fall borom ngàcc Fall borom gën gi réew muy soxna May Wàdd bi kenn ki son am yàlla nekk jàmbaari maam Samba Fall moom Cheikh Modou Moustapha Fall moom maam Sera Fall nekk pari bokk ci liggéey bi tabbal ci addiya ju am solo ñu ngi lay gërëm ñu ngi lay sant ci wëlis bi nii nga ci taxawee son am yàlla bëgg na lool soxna May Wadd yaa son am yàlla bokk maam Sera Fall moom gëmul ku dul maam Samba Fall borom ngàcc Fall borom gën gi réew sunu jàmbaar ja yàlla sunu borom fayal nu ko ca Paris soxna May Wadd ñu ngi lay gërëm waaye fàttewuñu soxna Aïssatou Gueye madame Sène ñu ngi lay ziyaare bu baax ñu ngi lay gërëm ñu ngi lay sant foofu ca pari di jàmbaari Serigne Touba waaye di jàmbaari maam Serigne Fall bi soxna si wootee liggéey bi mu bokk ci jàmbaari muy soxna muy soxna Aïssatou Gueye yëkkati addee ju am solo tabbal ko ci wëlis wi nga xamante ni moo jëm ki fi nekkal euh, maam Serigne Fall muy soxna Aïssatou Gueye ñu ngi lay sant ñu ngi lay gërëm mu jaar ci Serigne Cheikh Bintu mii bunt bi dem ci ki fi nekkal maam Cheikh Ibrahima Fall muy sëñ Amdi mu du Mbenda kon soxna Aïssatou Gueye pari ñi ngi lay gërëm ñi ngi lay sant addee ji nii nga ci taxawee bu déwénee yàlla nga gën a am lu kawe sa njott ci barkeb Sëñ Tuubaa loolay maam Cheikh soxna Amy Yàlla bëgg na loolu waaye ñu soxna Xadi Mbaw nekk Paris di jàmbaar ci daayira bi di jàmbaar lool ci daayira bi moom tamit jëf na ci jëf ju am solo soxna Amy Yàlla mi ngi lay gërëm ak mbooleem ñi ngeen ko àndal yëpp rek soxna Amy Yàlla mi ngi lay gërëm bu baax soxna Xadi Mbaw Serigne Cheikh Bintu bëgg na addi ñi ni ngi taxawee ñu ngi ñaan bu déwénee yàlla na sunu borom ful ko ci barkeb Sëñ Tuubaa dooley maam Cheikh waaye fàttewuñu kii nga xamante ni nag moo nekk Espagne mooy Adja Khady Niang mu baax mi nekk Espagne ànd ak mboole mbokkam ak ay xaritam ay wóllëre ay am di jàmmam yëkkati addee ju am solo buntu ba di eh, Adja Khady nekk Espagne jiite mboole mbooloo ma yëkkati lim bu am solo tàbbal ko ci addee jii nu jàkkaar lool kon Adja Khady Niang ñu ngi lay gërëm ñu ngi lay sant di ñaan wëlis maam Serigne Fall ni nga ko jëfee ren bu déwénee yàlla nga ko gën a mën waaye fàttewuñu euh, kii nga xamante nii nag moo nekk Paris mooy soxna ñaaño Jóob soxna am yàlla mi ngi lay gërëm mi ngi lay sant wëlis wi nii ngi ci taxawee mu jëm ci ki fi nekkal Cheikh Ibra jaar ci bunt bi muy Serigne Cheikh Bintu ñi ngi ñaan yàlla na borom yokk see xéewal soxna ñaaño Jóob Paris waaye fàttewuñu soxna Anta lay bëgg Bamba ñi ngi lay Paris ñi ngi lay siyaare bu baax ñi ngi lay gërëm soxna am yàlla gërëm na la sant na la waaye fàttewuñu soxna Ndeye Tambidou Sénégal moom ñi ngi koy gërëm bu baax di ji mu yëkkati tàbbal ko ci wëlis bi am yàlla bég na ci soxna Ndeye Tambidou Sénégal waaye dañuy demaat beneen jàmbaar muy Adja Fat Doucouré di jàmbaar lool nekk ci fii ci Sénégal di jàppale son am yàlla ci liggéey bi ak mbooleem képp kum ko àndal Adja Fat Doucouré soxna am yàlla mi ngi lay gërëm mi ngi lay sant di ñaan yàlla sunu borom yokk see xéewal waaye fàttewuñu ki nga xamante ni nag mooy Adja Awa Gumbala nekk États-Unis di jàmbaar lool ca réewum Amérique di jàmbaar lool yëkkati addee ju am solo tabbal ko ci wëlis wii nga xamante ni moo jaar ci bunt bi muy Serigne Cheikh Bintu jëm ci ki fi nekkal Cheikh Ibra soxna am yella mi ngi lay gërëm Adja Awa Gumbala ci États-Unis di ñaan yàlla sunu borom yokk say xéewal waaye fàttewuñu Serigne Saliou Samb ci États-Unis ñu ngi ñaan ci barkeb Serigne Saliou wëlis wii jëm ci maam Cheikh maam Cheikh Ibrahima Fall mu jaar ci bunt bi Serigne Bintu Serigne Saliou Samb soxna am yàlla mi ngi lay gërëm mi ngi lay sant mi ngi ñaan yàlla na sunu borom yokk see waaye waaye fàttewuñu ki nga xamante ni mooy Adja Anta Badiane ñu ngi koy sant bu baax ñu ngi koy gërëm ci réewum États-Unis mu yëkkati lim bu am solo tabbal ko ci wëlis wi nga xamante ni moo jëm ci ki fi nekkal Cheikh Ibra mu jaar ci bunt bi muy soxna Ami Yàlla ak jàmbaaram ji Serigne Cheikh Bintou Fall kon Adja Anta Badiane ci Amérique soxna Ami Yàlla mi ngi lay gërëm mi ngi lay sant nee na mi ngi ñaan yàlla sunu borom boole ci milliardaire Serigne Touba yi soxna Adja Anta Badiane ci Amérique waaye fàttewuñu ajaratu Abibatu Mbay ci senegal ñu ngi koy sant bu baax ñu ngi koy gërëm ñu ngi koy ñaanal yàlla na sunu borom yokk ay xéewalam wëri si maam Cheikh Fall bi nii mu ci taxawee bu déwénee yàlla na ko gën a mën ci barkeb Sëñ Tuubaa dooley maam Cheikh waaye fàttewuñu ki nga xamante ni mooy Adja Ñaaña Caam ca Paris di mbokkum soxna Faat Kinne soxna am yàlla mi ngi lay gërëm soxna am yàlla mi ngi lay sant soxna am yàlla mi ngi lay ñaanal bu baax yàlla na sunu borom yokk say xéewal ajaa ajaa ñaaña caam di mbokkum soxna faat ki ne caam ñu ngi ñaan yàlla na sunu borom yokk say xéewal eh, ci barkeb sëñ Tuubaa dooley maam Cheikh ajaa ñaaña caam soxna am yàlla bég na sëriñ Cheikh mi ngi lay ñaan yàlla sunu borom yokku say xéewal waaye fàttaliwuñu ajaa ñi ma ba ci senegal ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm ci wëlisu maam Cheikh Ibra Fall wii nii mu ci taxawee bu déwénee yàlla na ko gën a mën yàlla na sunu borom yokk say xéewal ajaa ñima ba son am yàlla gërëm na la son am yàlla sant na la waaye fàttewuñu euh, jàmbaar ji nga xamante ni moo nekk asalem Dakar muy ajaa Aida Dieng Lamane ñu ngi lay siyaare ñu ngi lay bége ñu ngi ñaan yàlla na sunu borom yokk say xéewal ajaa Aida Dieng ci walisu maam Serigne Fall wi nii nga ci taxawee bu déwénee yàlla na sunu borom yokk say xéewal son am yàlla mi ngi lay gërëm soxna am yàlla mi ngi lay sant di ñaan yàlla na sunu borom yokk see xéewal yàlla na sunu borom yiir la yàlla na sunu borom aar la yàlla sunu borom sàmm la ci barkeb Sëñ Tuubaa doole maam Serigne Fall Adja da Dieng Laman aselem ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm waaye fàttewuñu jàmbaar yi nga xamante nii nag ñoo jàppale soxna am yàlla ci liggéey bi di góor yu baax ku ñuy wax taalibe xaadim nekk pari suñ pap soxna am yàlla mi ngi lay sant bu baax taalibe xaadim soxna am yàlla mi ngi lay gërëm soxnaam yàlla mi ngi lay ñaanal waaye Serigne Cheikh Bintou mi ngi lay ñaanal yàlla na sunu borom yokk see xéewal taalibe xaadim ni ngay taxaw daara ji rafet na addee ji ni nga ci jàppee dugal sa ñaq rafet na lool soxna si lu mu wote bokk nga ci ñi njëkk a joxe ñi ngi gërëm bu baax taalibe xaadim waaye fàttewuñu doomu soxna am yàlla muy Seydou petit fils Sëñ Saaliw ñi ngi koy siyaare ñi ngi koy gërëm di nasaraan waaye ba noppi di dund Sëñ Tuubaa ak Cheikh Ibra inni yu xaati bu nasaraal tura kon ñi ngi ñaan Seydou petit fils de sëñ Saliou di doomi soxna am yàlla ñi ngi koy sant ñi ngi koy gërëm yàlla na suñu borom yokk see xéewal ak mboolem képp koo xamante ni yaa ngi ci biir daara ji di jàppale soxna am yàlla ci liggéey ñoom ñoom nangoog ñëpp rek waaye fàttewuñu suñu baay bii nga xam ne moom la ñuy jox kàddu gi muy Baye Malick Sarr di doomi Baye Mour Sarr mat mu maam Cheikh Ibrahima Fall ngi ñaan Baye Mour Sarr mat li mu fi bàyyi woon lépp yàlla nga àggale lépp ak mboolem ngi ko àndal soxna yàlla mi ngi lay gërëm soxna am yàlla mi ngi lay sant waaye dañuy sant sëriñ mi nga xamante ni moo nekk ci kër gi di dajale di dajale euh, bagage yi kon bu ko defee dañuy jox bay Malick Baye Malick ci ab tënk rek euh, wëlis wii nga xamante ni sëriñ Cheikh Bintu mi ngi koy jox képp ku fi nekkal euh, Cheikh Ibra ren jii mu sas ko jëwriñ jë jëwriñam jë féete fay di mbokkam di léppam muy soxna Amy Yalla Ndiaye Baye Malick wëlis wii kañ la ko sëriñ bi tàmbali ci ab tënk bu gàtt rek. ñu doog a yëkkati walis wi yóbbu ko ci sëriñ Cheikh Bintu mu yóbbu ko ci baayam bu baax bi ki fi nekkal Cheikh Ibra waaye di falaat bu baax soxna am yàlla bu baax a baax di ko gërëm ndax ku ne xam na ni walis wii nii ko soxna am yàlla defee walis wi dafa ànd ay basang basang yi nag yenn yi am na yoo xamante ni ci sëñ Amdi Fall la jëm sëñ Cheikh Bintu waaye am na yoo xamante ni ki duppe daayiru subul salaam tur wi muy sëñ Mamor moom Cheikh Mouhamadul Moutada Mbacke góor yàlla sëñ Mamor ci daara yi sëñ Mamor ci école yi sëñ Mamor di yaatalaat yoon yi sëñ Mamor di yeesalaat yoon yi sëñ Mamor di taaralaat yoon yi moo war a soxna am yàlla jël basang yii daayira subulu salaam sëriñ bi moo leen tuddee woon daayira subulu salaam ñu jël ko boole ko ci addee ji mu bokk ci addee jii nga xamante ni mbokki taalib yëpp joxe nañ ko basang yii ci la bokk waaye dafa am pàcc boo xamante ni moo jëm ci sëñ Mamor Mbacke moom sëñ Mouhamadou Moutada borom Bamba dey ñi ngi ñaan yàlla na sunu borom guddal aw fanam daayira bii nga tuddoon daayira subul salaam yëkkati nañ basang yii war koo jébbal sëñ Maam Mor mu sëñ Mour Moutada mu sëñ Mouhamadou Moutada Mbacke góor yàlla mu defal leen ko ci liggéey sëñ Tuubaa bi mu toll mu toll ci fukki basang ak ñaari du seen satala waaye ku ne xam na ni sunu jàmbaar ji Serigne Cheikh Bintu Fall xalifa euh, sëñ Mour Ablaye Fall Ndar wëlis wii Serigne Cheikh Bintu mu ngi ko jëm ci ki fi nekkal Cheikh Ibra waaye addiye jii ak mbaseñ bu rafet bii waa daayre bi ñoo ko nuyoo sëriñ bi ndax sëriñ bi lim dajale baayam la koy jox muy sëñ Amdi waaye waa daayre bi ñoo nuyoo enveloppe bii sëriñ Cheikh Bintou Fall muy soxna Ami Yàlla ak mboolem ñi nekk ci daayre bi daayre maam Seynou bu Ndiaye daayre Subulu Saam association Mika Paris Police Baye Fall international mboolem daayre yi ñoo siyaaree enveloppe bi euh, sëriñ Cheikh Bintou Baye Malick wëlis wii sëriñ Cheikh Bintou sëriñ di jox ki fi nekkal Cheikh Ibra walis bi lan moo ko sabab. rahmatullahi taala wa barakaatu. ñoo ngi nuyoo tey siyaare tey sant bu baax di nuyu sëriñ Mouhamadou Mountakha xalif général murid yëpp waaye di nuyu bu baax sëriñ di Fall moom sëriñ Modou Mbenn Fall xalif général Baye Fall yëpp. waaye noo ngi nuyu bu baax sëriñ Cheikh Bintu di sunu bunt ci yoon wi. di leen nuyu yéen ñi ñu àndal ci liggéey bu rafet bii te tollu fii mu toll tey sëriñ Xaadim Madina ak sëriñ Loum Eh, di leen ñaanal jàmm nag te yaakaar ne di ngeen ko am lool te di ko ñaanal sëriñ bi di ñaan nu fekk ko ci jàmm. <clears throat> sëñ Xaadim soxna am yàlla liimu def and koog murit yi nga lim yëpp jarul ñu di ci dallu noonu mboolem fu nit baaxee mboolem fu nit di murite mboolem fu di jëfe-jëf ju baax tudd nga ko muy Sénégal ak Amérique ak Europe yëpp. soxna am yàlla nag ñu yen ko yen boo xam ni mooy yen ba ñu yenoon maamam ndax. soxna Amy Yàlla daa bokk ak euh, Cheikh Ibra Fall ca Njare bokk ci kër gi sëñ Cheikh Ibra Fall di kilifaam waaye maamam maam Seydou bu Njaay ba nettali la ci nii moo daan fóotal sëriñ Touba te sama baay nee na bu masaa indi póot mi muy euh, jox sëriñ Touba aji màgg ji da daan fekk mboolem ku ni ci kër gi dina la jox euh, mbubb wala mu jox la koddaay wala mu jox la askumba wala mbaxana wala dàll wala satala nga xam ni póot mi sama bàyyi ne soxna Astu Jóob moo ko wax ni maam Seenu bu Njaay sama ndey suñu masaa yóbbu póot mi si Sëriñ Tuubaa aji bàgg ji bu nu yeggee sama ndey day yóbbaale ay sér yu baree baree bare baree bëri ak i satalaaki ay sijaadaaki ak i dàll ak i mbaxana ku wër kër gi ak ku ni ci biir ku ne dina la jox sa koddaay sama bàyyi nee na Cheikh Ibrahima euh, maam Astu Jóob nee na ko Modou Sabaay ne ma ne ko Fall mu ne ko am na bés mu ñu liggéey bii nga xam ne moom la sama ndey Seydou Seydou mu Njaay liggéey nee na ba ñu yeggee jox ko sëñ Tuubaa màgg ji nee na maa ngi ci kees gii fi daa yemmal aji màgg jàng ca kees gële di tomb ay tomb ne sama ndey moo fa póot mi raam ba yegg fa moom moom Seydou mu Njaay mooy raam ba yegg fa sëñ Tuubaa aji màgg ji sama baay nee na soxna Asu Jóob nee na ko euh, maam Seydou mu Njaay nee na bi mu yeggee ba fi sëñ Tuubaa aji màgg ji yëkkati póot mi teg ko fi kanamam daa fekk sëñ Tuubaa di tomb ay tomb muy tomb di tomb yàgg mu yëkkati boppam daal di ne ko sunu ndey saa baay ne soxna si Jóob nee na euh, soxna Seydou bu jaay di mel ni kuy xëm sëñ Tuubaa bàyyi ko ca melokaan woowa ba mu ximali ko delsiwaat mu ne ko soxna si lii nga doon def loo ci jublu mu ne ko dara mbàkke danoo xam ne nun dul sa ndey sab jaam rek lanu mu ne ko wax nga dëgg waaye ëllëg de ñaar rek lañ fee gis te kenn ka yaay ndeyam kon moomee nag nga soxna maam Seynabou Ndiaye soxna si Diop soxna Khady Sarr soxna Fat si la moom sëñ Madou Ba la euh, moom moom sëñ Maniaw si la euh, soxna Khady Sarr moom sëñ Ibra Sarr Njaañ ak Cheikh Ibra Fall ak soxna si Diop ak maam Seynabou Ndiaye ñoo daan bokk póot ma saa bàyyi ne soxna soxna si Diop nee na fóot mi sumb bu njëkk bi buñ ko dugalee ci kii bi dañ koy génne duñu wañ sér yi duñ ko bës waaye buñ ko génnee buñ ko dugalee ba xam ne bi dugal nañ ko ci ne buñ ko génnee dañuy fam ndox moomu def ko ci ay butéel Cheikh Ibra ne lu mu bëgg faj ci la faju maam Seydou bu Njaay ak mboolem ñu bokk euh, puut mi kenn ko ne la nga bëgg a fóot ci nga koy fóot moom a euh, yooye ak dàll yooyee moom la soxna Ami Yàlla Njaay di fay waaye ànd koog ñi nga xam ne mooy yu baax ñi nga lim ndax kenn mënul dara soxna Ami Njaay Ami Yàlla sëriñ bi sant na ko mu nekk jëwriñu maam Seydou bu Njaay ci Europe yëpp ci ci ci ci euh, fépp rek nga xam ne mboolem li nga xam ne ñoo nekk ci Amérique ak Espagne ak mën a doon te ñu fi yëngu ci maam Seynabou Ndiaye dafay daa war naa jokkoog soxna Ami Yàlla Ndiaye mu sant leen li sëriñ bi santaane wax leen li mu bëgg fi mu bëgg ñu teg ko fa ñu di ko def ak moom noonee waaye loolee moo ko jox nag cër la boo xam ne bii cër la bu yàgg yàgg la kon loolu ñi nga xam ne ñoo ko ciy jàppale sëriñ euh, Xaadim Madina sant teg na wax na ko fii lépp ci wax nii tudd seen tur yi kenn ku ne la nga jëf ndax murid sax li muy def moom wutul ku ko ci tudd waaye nag di jëf ku la waaw góor day yokk jëf loole moo tax Serigne Khadim Madina kenn ku ne mu jaar ci sew tur nekk bu kuñ jaaru woon sew tur it du tax nga li ngay def nga bàyyi ko ndax defaloo ko kenn ku nu yàlla ak Serigne Touba ak Cheikh Ibra soo amee yàlla Njaay nag ci loolu lay wootee donc ko ci sant nag ci wuyu guñ ko ci nangoo wuy ji ndax jikkoom moo tax ñu wuy si ko ndax nit ñi kat suñu àndeek yow ngeen di jëf te kenn rek tax ngeen di jëf jëf ji tegu nii nga xam ne buñ ko ndee teg ko ci ay loxo loxo yooyu dañ ko teg ci loxol Serigne Cheikh Bintou Fall ji ni ko waxee loole nag soo sëñ Xaadim Madina moo ñëw ba ci sëñ Ablaye Fall Ndar ñëw ci sëriñ Modou lay Fall ñëw ci sëriñ seex Bintou Fall tey mu nes fi loolee moo waral jëf ji ñëw sëriñ Cheikh Bintou Fall lii muy def lu fi fekk la ay maamam ak i baayam euh, ak i mamaatam di ko def mu di ko def ba ànd ko ak noonu yàlla na fa yàgg nu yàgg fi yàlla na fi kilifaam yi yëpp yàgg yéen ñi itam seenu taxawaay noo ngi ñaan mu yàgg lool sëñ Xaadim wax dëgg yàlla taxawaay bi rafet na lool noo koy gis Euh, te noonu bàmba ji ci la ñu judd ci la ñu yaru ba toll nii nu toll kon nag lu ci waay def ngir yàlla di ko def ngir sëriñ bi loola xam nañ ne di nga ci am tuyaa bi ndax dafa waxoon ni man de du ma yërëm ab taalibe ndax lañ koy fay laa gis lañ koy fay moo ëpp doole fuuf lib taalibe di di gisal boppam kon nag eh, jëf jooju yàlla na ko yàlla boole ci barke sëñ Touba barke maam Cheikh Ibrahima Fall di ñaanal sëriñ Cheikh Bintu nag aw fanam gudd jàmbaar la ku bëgg baayam la ku bëgg maamam la ku bëgg yoon wi la ku bëgg ak nitam la kon soxna Ami yàlla euh, ngërëmul sëriñ bi am nga ko yaa ngi mboolem koo àndal ngeen di liggéey liggéey bi xam na dañ sippi nag ñaari nit rek gën leen a sant bu baax ndax wax nañu lépp waaye dañ di ñoo xam ne itam ñoom ñëpp ay jàmbaar waaye ku mel ne euh, euh, soxna Ndeye Mbuub wax dëgg yàlla ab taxawaayam ak i ojoom lépp dañ koy gis nag. loolu lépp nag mu bëgg lu baax rek ñu ngi koy àndal ndax lañ koy wax lool ci ci lay wax kooku nga xam ne mooy taaliba Xaadim itam kasaalika naka noona ak mboolem soxna si nga xam ne moo àndoon nag euh, soxna si. Euh, di waajuru ñi nga xam ne ñoo fi soxna Jaañ nga xam ne ñoo fi bàyyi ko te barki démb sëñ bi dem ca duggoo ba ànd ak ñoom ñu euh, ñaanal ko ndax sëñ bi daa man ab taalibeem ndax taalib ku la jox boppam àddina ak àllaaxira bu jekkee ba jëm àllaaxira war nga koo tiim ñaanal ko yàlla sunu borom waaye sëñ bi dem na sëñ Cheikh Bintu dem na ba ca euh, armeel ya mu denc ko ñaanal ko ñun ñii itam nu dem ba ca euh, euh, bis ba mu yabal nu fa nu dem ca sarax sa ah, loolu lépp nag taxawu ñi nga xam ne ñoo dem xam ne ñi dem ak ñun ñi fi des ñun ñëpp noo bokk bëgg sëriñ bi sëriñ Xaadim Madina noo ngi sant te yemale foofu rek kàddu gi ndax lu jeex mukk ndax ah, ñu baax ci la ñuy wax kuy wax ci nit ñu baax loo wax la la des lu baax la day taxawaat fi sakaram nga war koo wax te ku topp lépp doo fi jóge tey yàlla yàlla dimbali te jàppale ci barke Sëriñ Tuubaa barke maam Cheikh Ibrahima Fall jëf mbokk yi topp ci biir mi ak bitim réew wali su maam Cheikh Ibrahima waa ngoog ku ne xam ne ni grand mbubb yu rafet jees neer yi ñu jàkkaar lool ak ku ne xam ne ni taare mi ñi ngi ci ku ne xam ne ni sarbet yaa ngi ci ku ne xam ne ni bàyyi son bi mi ngi ci ku xam ne ni xabtaan yi ñi ngi ci waaye xam ne ni si sijaada yi mi ngi fi waaye ku xam ne ni dàllu marocain yi ñi ngi ci waaye ku ne xam ne ni parfum yu am solo yi ñi ngi ci waaye ku ne xam ne ni mbaxane ak kaala yi nga yu rafet yi nga xamante ni mooy samba sembe yi ñu ngi ci waaye ku ne xam ne yi yaa ngi ci waaye ku ne xam ne ni ak mboolem bagage yii fi daje mu jëm ci kii nga xamante ni mooy Serigne Cheikh Bintu mu teg ko ci ki fi nekkal maam Cheikh kon ñi ngi ñaan Serigne Cheikh Bintu Fall xalafan mat na xalifa ci lislaam ku mel ni moom jafe na Serigne Cheikh Bintu yàlla na sunu borom defal ko taw tawféex yàlla na yàlla fesal ko fesum kanam te mu sax soxna am yàlla mi ngi sant daayira subul salaam association Mika Paris Pôle Baye Fall international képp koo xamante ni yaa ngi ci biir groupe WhatsApp bi soxna am yële mi ngi yëkkati kàddu cant ak ngërëm di ñaan yàlla sunu borom yokk seeni xéewal allahuma salli wa salli wa barik ala sayidina wa mawlana muhammadin nabi lummi wa ala alihi wa sahbihi wa xadimihi wa sallama tasliman barke borom tuba doolay maam Cheikh Rahim Fall mboolem faaye mën nekk ci biir réew mi ak bitim réew 24 actu mbay ñu ngi ñaan yàlla na sunu borom yokk sit bi jërë ngeen jëf ba ci kanam ñu dem jébbal ko Serigne Cheikh Bintu mu tàllal ñu ay loxoom ñaanal ñu jël liggéey bi teg ko ci loxol baayam bi muy sëñam di Fall jërë ngeen jëf